Serigne Moussa Darame Serigne Moussa Darame mi ngi feeñ jamono ci atum 1854 ci dëkk bu ñuy wax Kër Gata Kër Gata nag mu ngi ci wetu dëkk bii nag di Mbirkilaan ci suuf sii nag di Saalum ci dëkk boobu nag la Serigne Moussa Darame feeñe jamono ci atum 1854 di doomu soxna Ramaseen Cissé ak ku ñuy wax Serigne Idrissa Darame moom Serigne Moussa Darame nag am na ñu bokkal soxna Ramaseen Cissé ak kii di Serigne Idrissa Darame ñu mën cee ràññee soxna Maram Barka Darame bintu soxna Ramaseen Cissé ak Serigne Idrissa Darame ak ku ñuy wax soxna Jaara Sën Daraame bintu soxna Rama Sën Cissé ak sëriñ Idrissa Daraame ak ku ñuy wax sëriñ Samba Khourédia Daraame ibnu soxna Rama Sën Cissé ak sëriñ Idrissa Daraame ak ku ñuy wax sëriñ Mbultim Daraame ibnu soxna Rama Sën Cissé ibnu sëriñ Idrissa Daraame ak ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Sën Daraame ibnu soxna Rama Sën Cissé ibnu sëriñ Idrissa Daraame ak ku ñuy wax soxna Amine Sall Daraame bintu soxna Rama Sën Cissé bintu sëriñ Idrissa Daraame ak moom sëriñ Moussa Daraame ibnu soxna Rama Sën Cissé ibnu sëriñ Idrissa Daraame moom sëriñ Moussa Daraame nag juróom-ñaar nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy juróom-ñett moom sëñ Moussa Dramé nag bi matee dal alxuraanul karim ci dëkk bu ñuy wax nag dàgga bani lañ ko yóbbu woon ci saalum ku ñuy wax sëriñ Sader Kodé nag moo ko fa doon jàngal ci loxoy sëriñ Sader Kodé nag la nekk nag ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw bi nag la fa jóge dem nag ci ku ñuy wax maamu maram bakar ngir jàng fa nag lii di xam-xam ci ñaari jëm yii nag la jàngee alxuraanul karim nag ak lii di xam-xam ba géeju ci lool nag mu delsiwaat nag ci dëkk bi mu cosaanoo di wanaar kër ñu boole kook soxna suñuy wax soxna Bodé Mati Cissé soxna Bodé Mati Cissé mii nag moo meññ ak njabootam gu mag muy sëriñ Mouhamadou Dramé mi ko njëkk a wuutu ak sëriñ Babacar Dramé nag mi nekkoon ñaareelu xalifaam soxna si nag di soxna Bodé Mati Cissé ñaari bant yooyu rek la am ak sëriñ Moussa Dramé nag daal di génn àdduna ginnaaw bu soxnaam soosu nag génnee àdduna di soxna Bodé Mati Cissé mii sëriñ Sader Kodé di ki ko jàngal nag alxuraanul ak kii di sëriñ Moussa Dramé ginnaaw jafe-jafe yooyu mu amoon nag ci dëkk boobu nag di kër gata sëriñ Moussa Dramé itam nag jaar na fi itam nag ci dëkk yu takkoo takkoo takku nag ñu mën cee ràññee nag dëkk bii ñu tuddee dàgga bani ginnaaw dàgga bani itam nag delluwaatoon na kër gata ginnaaw kër gata nag la dem njurul njurul nag ba mu fa demee ku ñuy wax nag sëriñ ayib amin nag la fa fekki woon sëriñ ayib amin mii defoon na ko imaam nag ca dëkk ba faboon na soxna itam nag jébbal ko ko ginnaaw njurul moom sëriñ Moussa Dramé dem na itam nag ci dëkk bu ñuy wax màkka ñëngeen ginnaaw màkka ñëngeen nag la dem Touba parxa ginnaaw Touba la delluwaat nag màkka ñangeen ginnaaw màkka ñangeen googu mu delluwaatoon moom sëñ musa Dramé la fa jóge nag dem sanc dëkk bu tudd Pakacaar bi déeka ginnaaw Pakacaar bi déeg nag la dem nag ci dëkk bu tudd Diofior fekki woon fa nag doomu ndayam ju ñuy wax sëriñ Mammoor Combaan ginnaaw Diofior ci doomu ndayam boobu di sëriñ Mammoor Combaan la fa jóge nag delluwaat nag Pakacaar bu déeka Pakacaar bu déeg bii nag la jóge nag dem fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci gànnaar ginnaaw Pakacaar bi déek la dem nag ci dëkk bu ñuy wax Pakacaar bu mag ginnaaw Pakacaar bu mag nag la sanc nag ab dëkkam ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ñu tudde ko daaru salaam ñu gën koo xam ci daaru pakacaar ginnaaw daaru salaam ñu gën koo xam ci daaru pakacaar moom sëriñ Moussa Dramé itim na sancaatoon na beneen dëkk bu mu tudde Touba ay taalibeem nag la ko jébbaloon Touba gii mu sancaatoon nag ci Saalum digganteem ak daaru salaam ñaari kilomètre moo dox ci diggante bi ginnaaw gi itim nag sancaalaatoon na sëriñ Basiiru Mbàkke mu sëriñ tubaa xaadim rasuul ab dëkk ñu tudde ko kër sëriñ Basiiru juróomi kilomètre la digganteem ak daaru salaam màggal gañ fay amal sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Moussa Mbàkke moom sëriñ Basiiru moo koy taxawu nag at mu jot sëtam bii nag di sëriñ Lamine Dramé defal na ko nag ay way ci dëkk yooyu mu jaar ak mbooleem njaboot gi nga xam ne nii nag ñoom la dëkkoo woon tuñ tudde leen ay soxna ak njaboot gam ci am ñu tudde leen ay doom ak sëtam yu makka lii lépp nag sëriñ Lamine Dramé tënkal nañu ko ci ay way ñu lu ko adooka yaa rabbi bi jaay Cheikh Moussa mburum tawilun dafa dura yaa soleeni adooka yaa rabbi bi jaay Cheikh Moussa xaboole nasmiya inni Lamine Dramé adooka yaa rabbi bi jaay Cheikh Moussa jaabatu daayi ahlal maqaami adooka yaa rabbi bi jaay Cheikh Moussa xeral jasaliya maa salaami daawatuka allahuma fi kulli nafiatin wa takfini kulla ma xaramuhu ulimi arjuka ya rabbi bilmuxtaari sayidina wa muuyubi walqabia ya karimi ijal li allahuma bijaahi cheikh Moussa nafiatul xaya walmamaati ya karimi inni qaimun waqbal nisaamiya li wajudta lil ujura ridal karimi inni qaimun fi madhina li cheikhi wa huwa li cheikhina Moussa Darame adumuka ya rabbi bijaahi cheikh Morbode ibnu Moussa Darame ridal karimi adumuka ya rabbi bijaahi cheikh Babou Bode ibnu Moussa Darame saada ya السلام أدعوك يا ربي بجاه شيخ سينب ابن موسى درامي عافية يا كريم أدعوك يا ربي بجاه شيخ درامي ابن موسى درامي إجابة الكريم أدعوك يا ربي بجاه شيخ بزير ابن موسى درامي رحمة يا عاصم أدعوك يا ربي بجاه سن العاجي ابن موسى درامي قبولة الكريم أدعوك يا ربي بجاه عمر درامي ابن موسى درامي بركة الخديم أدعوك يا ربي بجاه علي فاطمة ابن موسى درامي أحلى المقام أدعوك يا ربي بجاه شيخ فاتو جينا ابن موسى درامي خير التمام أدعوك يا ربي بجاه محموده ابن موسى درامي رضا الأبي درامي أدعوك يا ربي بجاه سرين قديم ابن موسى درامي رضا الأمي درامي أدعوك يا ربي بجاه شيخ درامي ابن موسى درامي فردوسي يا عاصمي دعوتك اللهم بجاه سحن سينب بنت سرين موسى Dramé xurbul karimi daawatuka allahuma bi jaayi soxna Seynabu bintu sëriñ Moussa xurbul karimi daawatuka allahuma bi jaayi soxna Roqiya bintu Moussa Dramé waslu ilal xadimi daawatuka allahuma bi jaayi soxna Olima bintu Moussa Dramé taxeesu kullu yawmi daawatuka allahuma bi jaayi soxna Fatima bintu Moussa Dramé wasulu fil karimi daawatuka allahuma bi jaayi soxna Aminta bintu Moussa Dramé maxira fil qiyaami daawatuka allahuma bi jaayi maam Jaara Buso bintu Moussa Dramé laa fitna fil qiyaami daawatuka allahuma bi jaayi soxna Aïsa bintu Moussa Dramé laa akla duudu lawmi daawatuka allahuma allahuma bi jaay soxna ummi bintu Moussa Darame laa jus siraatal yawmi daawatuka allahuma bi jaay soxna xadihi bintu Moussa Darame ilaa jamtin naimi daawatuka allahuma bi jaay soxna natuhu bintu Moussa Darame xeyral xisaabi yawmi daawatuka allahuma bi jaay xadi aminta bintu Moussa Darame xeyral munan naimi daawatuka allahuma bi jaay soxna Aïsa bintu Moussa Darame sawjata lii fi dawmi woy dëggaan seen ndey ngir am ngërëm yëbu wér bi jaay seex fi Moussa wajaldoxol umami daawatuka allahuma bi jaay rahmatamati nawir li xalbi asit nuuri wa kulla tami daawatuka allahuma bi jaay soxna Zeynabu wanfil bala warrasaya wa dafa xumami daawtuka allahuma bi jaahi fatma lolli wajal aqaidi fi llahi wa fi lkurami daawtuka allahuma bi jaahi fati jeyna wa silli hubbika fi qalbi wa fi lxidami daawtuka allahuma bi jaahi aminta kanji sabit qudami fi llahi wa fi lximami daawtuka allahuma bi jaahi xadiyuma abi saadata wa biddaarini walbaraka daawtuka allahuma bi soxna aminta moom dafaxanta kulla sarri wa durri ma xumami adooka yaa rabi bi jaahi tayfuruka ibnu sëriñ Moussa arida alxadimi daawtuka allahuma bi jaahi saalihiina wa saalihaati kulliha basir ayaati doomi inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa inni ubayduka bil xidami dañoon xalbiya la sirkun wala ansadin li ahadin fi xayaati tayyibal umami bi jaahi mor njaabuka wa mor lamin omarun wa mustafa aliyuna wasifa lamimi tabibuna cheikh moussa darame jaddadani min umiya wal abi kulluhum karami nasamtuhu qaadima moussa laminu murid wa saadixun bayinatun la saka xidami inni qaimun fi daahi bi barakatin li sayxina jaddina moussa lahul karami salaa wa sallama fi jaddi li sayxina wa saxalhu darajatin wal ulal nihami salaa wa sallama yaa rabbi wa xaaliquna li sibtihi indaka fi barsaqil qiyami taxawal naa fi la man ndaxte way yu du doy bamba na la boxaram nga moomee mu wéy nag nekk nag ci dëkk bii di caar bu déeka moom sëriñ Moussa Dramé yor itam nag wér di wii ñu tudde wér di tiijaani ya kilifa yu takkoo takku itam nag ci tarixe boobu nag di tiijaani ya itam nag jaar na fa waaye nag ci sëriñ soo mu jaar itam nag du fa yàgg ci kum jébbulu itam bala faa yàgg jóge fa dem seeti kaneen ba nim gisee nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci kilifa yim jot a wax koor ndaraame ginnaaw bi itam nag bàyyi koo na fa dem itam nag ci sëriñ sax du abi waaye sëriñ sax du abi mi itam nag yàggu fa ginnaaw bi itam nag la fa bàyyi koo dem nag ci nag bu Kaolack ginnaaw sëriñ nag bu Kaolack itam nag fi bàyyi koo dem seeti nag maam El Hadji Malick si nag bu Tiwaawoon bi mu jógee ci sëriñ Abdoulaye Niass nag bu Kaolack sëriñ Abdoulaye Niass bu Kaolack bindoon na lettre maam Cheikh El Hadji si di ko xamal ne nag ab jeeg a ngi noonu itam nag jëm si ci yow ku ko takk itam nag da nga ko fayli maam Cheikh El woon na sëriñ Abdoulaye Niass nag bu Kaolack loolee itam picc moo xam ne ni car bu mu séen dal ca saa bu gisee nag car bu ko àttan dana ca toog mu wéy nag des nag ci loxoy maam Cheikh El Hadji Malick nag ba ni ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag wooloo ci gànnaar ma wax leen sëriñ Moussa Dramé lu ko indi nag ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw bu ñu leen yëgalee nag kilifa yi yëpp mu jaar nag ci wàllu tariixa doomam ji nag nekkoon ñaareelu xalifa nag di sëriñ Babacar Dramé moo seeti woon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci gànnaar ginnaaw bu mu eggee nag ci gànnaar dëkk bii nag di xumaak la Rasoul nag doon xamal ne delluwaatal Sénégal soo demee na nga ma sa waajur wa sëriñ Moussa Dramé sëriñ Babacar Dramé bi mu nekkee nag di jàng nag ci dëkk boobu nag di Saloum ci dëkk bii nag nekk itam nag ci wetu Gambi ñu koy wax kër Gambi saa bu masaa xëy nag jël bind nag di jàng ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasoul da koy feeñu moom sëriñ Babacar Dramé ba tax ne itam nag mujj gi itam nag am njàngam itam nag mënutul te wéy ginnaaw bi nag la fa bàyyikoo nag ñëw seet si waajuram wi di sëriñ Moussa Dramé di ko xamal ne daal am na benn kilifa gu nekk nag ci Kajoor may jàng daal dama koy gis ci sama kanam moom nag laa bëggoon a seeti ginnaaw bu ko sëriñ Moussa Dramé nag ñaanalee nag ba ko nag mu dem mu ngi fekki nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag ci réew mi nag di gànnaar ci dëkk bi itam nag di xumaaka ginnaaw bu sëriñ Babacar ziyaare ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba noppi nag sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag yabalaatoon na ko nag ci réew mi nag di Sénégal di ko wax na nag damal wool ma sa waa wa sëriñ Moussa Dramé ginnaaw bu mu ñibbisee moom sëriñ Babacar Dramé ba yëgal loolu waajuram sëriñ Moussa Dramé di ko xamal ne sëriñ Seexul Xadim doon na wax ne nag dala soxla ci réew mi nag di gànnaar sëriñ Moussa Dramé nag def na délégation nag ngir fekki nag ku baax ki sëriñ Touba Xadim Rasul ci dëkk boobu nag di xumaak ci réew moomu nag di gànnaar ba muy dem nag moom sëriñ Moussa Dramé nag mbooloo mi mu àndaloon ñu mën cee sëriñ Babacar Dramé moom di doomam mi ko woosi woon sëriñ Lamine Noor sëriñ Burama Mamour sëriñ Mamour Ndumbe sëriñ Njuga Maram sëriñ Mouhamadou Dramé sëriñ Aline Kaya Cissé sëriñ Omar Absa Ndiaye ak sëriñ Samba Xoya ñii nag ñoo àndoon ak sëriñ Moussa Dramé nag sëriñ tubaa xaadim rasool ci gànnaar ginnaaw bu ñu eggee gànnaar nag ba sëriñ Moussa Dramé gisee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ba noppi jaayante nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool nag ci réew moomu nag di gànnaar sëriñ tubaa seexul xaadim nag téye na ko fa ab diiritim daat koy yeey waan nag mu ñibbisi waan nag ci dëkk bii nag di saalum ci réew mi nag di sénégal keroog bi muy tàggatoo ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool seexul xaadim mi ngi doon xamal sëriñ Moussa nag di ko wax ne xasida gi nag di masaalikul jinaan boo koy jàngal Babacar Dramé ak Omar sa Ndiaye mii bu leen ko jàngale nag jàngale baay ak doom lii mooy indi nag sëriñ Moussa Dramé nag ci yoon wi mu nekk nag am murit nag bu dëggal nag ci ginnaaw ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul soo delloo ci mbindum sëtam bii nag di sëriñ Lamine Dramé mbooleem nag fu sëriñ Moussa Dramé jaar laataa muy ñëw ci ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ak xam-xam bi mu am moom sëriñ Moussa Dramé kaang fóori gi mu nekkoon loolu lépp itam na sëriñ Lamine Dramé nag nañu ko ci ay way ñu teewlu ko juddum fa saalum leeral na saalum xam-xam ba daalam mbootum dara amee juddum nga yiw la ci réew yu koom la léppam jamaal la dara amee bigal na ba Idrissa Kooba ak ndey jaaxal na saalum ngir gaaw ga daa yéem mbokkum dara amee lem ma daa leer ca mbooti anwaar da naan ba duy leer xamun dara amee ci at yu niiw ya da wëttu mbóot ya quraanu mbër ya dëkkam dara amee quraan ja daa saf toqol ba daa lëf randoom nga daa kaf taanguk dara amee gaa ñaa ko woowee ngir kaan jaxaayu tanu ko fa yeex yi ngir yem dara amee raay gay rafet ga mun kanga def gee kanga Moussa Darame waagayi fóore matal na buure ba far di waare yi mooy Darame mu sóobu yoon ya di xentu waax ya di dem ca taax ya gisal Darame bu dégg mbër ya ña sóobu wax ya jug di gaaya yimal Darame yàllaa ko jëñlu bopp moom di xeñlu mayam ya jaglu ilaa Darame muy ba ngir buur ngir mbuur ya rabba talmaan ca rabba mu jug di waami mu wër sëriñ sa di wër ca saasa ngir am li saasa xayru nexe mi mu daañ sa saalum ca xaalu saalum mu wéy amul kem muy xeñtu réew dem fa kawalak gisul ca koomee ndax waaja naaxe siram ba daay yées Moussa da gis ndax moom du xàmmee ndax waaja Moussa rafen ca soosa jantam la raxsa jëmmal na moo ne Musaa waaja waajal na góor ña waroo ca góor ña kudul xadimi waxtu wa daa jot jullim nga far jot jant ba far nga tonoy nga yéeme dikku Musaa ga ca jant dagg tereku la naaga ngir kii du waame mu xam ne kooka du waaja màkka mu romb kooka di wër kër yi mi mu dem ci waawoon ngir waati waawoon am nañ def am aw saala ngir kat di xañ fa moom kat ki raw ci réew mi ginnaaw ba xoolee sa kooka jàllee gisul ca kaalee ndax man ci réew mi nit saalum ngir wër na maalum gisul ci xaalam kenam ci réew mi ñu teg ci ay weer am at ya ñooy weer di wër te wóor leer Moussa di maame ginnaaw ba doom ja baaboo di doom ja waa yoona waaja bàyyam daraame leer gaaw ko feeñu ci ngaami jaaju mu jóg di jaaju ngir leer ga moomee mu jël jukkim ba ngir gis na la bamba di woote moomee baaboo nga xoomaat bi bamba mooy mag ngir gis na kay mag bamba nu moomee bamba ko woolu bàyyam coloolu la ñib si xaalu di woo daraame ndax nee na baay ba gis naa sa waay ba kookoo di koo ba bu jël kërim ba weeru jàllee ndax koor la jollee ba xéet ga jàllee mu wéy ci koome keroog la bamba teeñal yanam ba ngir gis na yan ba xësal daraame bamba ko teeñal ci jël ko farjal ñuy ku ñu bokkul xamal ko baaram kiram ji moomee keroog la bamba wax ak sëriñ ba dongam la booba walaay daraame amul ci réew mi ku mel ni moomee ndax bamba moomee baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim nag joxoon na ko fa ndigal ngir mu dem sanc nag dëkk bu ñuy wax daaru salaam gii sax ci la sëriñ Moussa Dramé génne àdduna ci atum 1927 ñu gën koo xam ci daaru pakacaara ginnaaw bu ko sëriñ tubaa seexul xaddim joxee ndigal nag mu dem sanc dëkk boobu nag di daaru salaam sëriñ tubaa seexul xaddim itam joxoon na ko yërey café muy li ko dale ci kafteer baraada ak i kaasa di ko xamal ne nag soo demee nag nga tàmmal ko taalibe yi wala soo demee nag nga tàmmal ko waa saalum ba tax na itam nag yërey café yooyu itam mi ngi ci njaboot gi seexul xaddim itam nag joxoon na ko kaamilu alxuraanul karim ba nëgë ne itam alxuraan bi mi ngi ci njabootuk sëriñ Moussa Dramé seexul xaddim itam nag joxoon na ko ay dàll ngir di ko wax ne na nga barkeeloo ko ba tey itam nag ci diggante sëriñ Moussa Dramé ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim Seexul Xadim nag mas na dajale mag ñi ci njaareem di leen wax ne na kenn ku ne nag dem Saalum nag ziyaara ji sëriñ Moussa Dramé taxoon na sëriñ Moussa Dramé ñu takkoo takkoo takku nag ci mag ñi itam ci jamono jooju nag demoon nañ seeti ko am na naarub gànnaar ñu doon wax Lamine moom itam nag bi mu jógee gànnaar ñëwoon seet si ku baax ki sëriñ Touba Xadim Rasul Seexul Xadim nag yabaloon na ko Saalum ngir mu dem seeti sëriñ Moussa Dramé Lamine moomu nekkoon naarub gànnaar ba mu dikkee Daaru Salaam doon seeti sëriñ Moussa Dramé julleem gam waroon ca teen ba fa sëriñ Moussa Dramé bënnoon nag la tàbbi am na sëtub sëriñ Moussa Dramé bu ñuy wax sëriñ Lamine Dramé doomu sëriñ Mouhamadou Dramé la bi njëkk a wuutu sëriñ Moussa Dramé moom lañ faye naar boobu ba tey ci ziar boobu sëriñ Touba Seexul Xaddim waxoon mag ñi ne nañ dem ziar ji sëriñ Moussa Dramé ci Saloum ku ñuy wax sëriñ Makhtar Dramé bokkoon itam nag ci jàmbaar yi ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim defar ci Saloum moom ginnaaw bu mu déggee waxe Seexul Xaddim jooju dafa waaj nag ba jekk yéene daa di wax ne nag maa ngi seeti sama taalibe ba sama sëriñ ba sama soppe ba te su ma eggee nag ci jëmm ji nag di sëriñ Moussa Dramé yàlla na suñ boroom nag jéggal bépp jullit ginnaaw bu mu egsee nag ci sëriñ Moussa Dramé ba ziyaare ko la ko sëriñ musaa Dramé nag di xamal ne keroog ba nga tegee sa tànk ba nag ci déglu fas wa fas yéene woon a ñëw nag ci dëkk bii la ma ko baax ki sëriñ Touba xamal ne la nga yéene woon nangul na la ko yónente bi sallallahu taala alayhi wa nag nangul na la ko buur bi tabaaraka wa itam nag nangul na la ko waaye maa ngi ñaan nag sooy dellu nga bañ a jaar nga jaaroon ngay ñëwee ba ni ngay delloo képp koo dajal jéggal nañu ko lii itam na sëriñ maxtaar daraame séq na ko sëriñ musaa daraame ci bi sëriñ tuubaa seexul xaddiim doon xamal mag ñi ne nañu dem saalum ziyaare ji sëriñ musaa daraame sëriñ maxtaar daraame mii nag moo sanc nag dëkk bu ñuy wax daaru muxti ñu gën koo xam ci kër maxtaar faati ba tey diggante seexul xaddiim ak sëriñ musaa daraame seexul xaddiim nag daana wax na seeti sëriñ musaa daraame jar na sol dàlli weñ ba mu rab nga solaat yeneen ngir gis nag sëriñ musaa daraame Touba Xaadim Rasul Seexul Xaadim nag mas naa bind ab lettre Serigne Moussa Dramé soo delloo nag ci lettre bi ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul bindoon Serigne Moussa Dramé nag di ko laaj addiya yoo xam ne nii nag Serigne Moussa Dramé mi ngi ko doon xamal ne mi ngi fi Seexul Xaadim nag ca lettre ba ma ngay bind ne lettre bii nag mi ngi jëm nag ci ku ñuy wax Tafsir Moussa Dramé dara nag taxul nag ma bind la lettre bi ndax yow yaa ne ma addiya mi ngi fi budul woon nag li nga wax nag ne nangam ak nangam nag mi ngi fi man nag duma la ko laaj ndax baaxawuma nag di laaj nit ki addiya jamono boo gisee mbind mii ma la mbind nga xam ne nag kooku yor mbind mi nag maa ko yónni samay ndaw lañ nanga ma ko joxal nag man la Dramé ak Issa Seck nag ngir ñu indil ma ko addiye jooju nga may jox nag na nga ko nëbb nag say kem damay ragal kan ñu dégg ko di ko sikki sàkka Seexul Xadim nag ba muy tëj lettre ba ma nga signé di wax ne Mohammed ibnu Mohammed ibnu Abibullah ñu teewlu nag lettre bi Seexul Xadim bindoon Serigne Moussa Dramé ginnaaw nag bu ko Serigne Moussa Dramé doon yëgal ne addiye junni nag mi ngi fi Seexul Xadim nag bindoon ko lettre nag di ko wax ne na ko ko jox ñu teewlu ko tilawata illa qawluka hindi kaza wa kaza walaw la dalika ma asaltu ilayka walakin fa mata raayta hësal qat fajxal fi yaddi Insa Seck wa Malle Dramé ginnaaw lettre boobu itam nag Seexul Xadim bindaatoon na ko beneen lettre di ko wax ne nag tarixa boobu ma la fekkoon nag di tarixa tijaaniya wirdu woowu itam ma la fekkoon nga di ko wird continuel nag di ko wird muy wirdu tijaan saa bu nit ñëwee nag laaj la nag foo jële wird wi na ko xamal ne nag Seexul Xadim moo ma ko jox man Seexul Xadim nag yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ma ko jox ci teewaayu nag Seex Tijaan Sërif lettre bi itam nag Seexul Xadim bindoon na ko Sëriñ Moussa Dramé lettre bi itam nag mi ci njabootu Dramé gi ba tey ci diggante ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ak sëriñ Moussa Dramé ginnaaw bu Seexul Xadim joxee ndigal sëriñ Moussa Dramé ngir mu sanc dëkk boobu nag di Daaru Salaam ñu gën koo xam ci Daaru Pakacaar sëriñ Moussa Dramé itam nag yónni woon na sëriñ Babacar Dramé miy doomam di laaj ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ndigal ngir bënnub teen la taxoon nag sëriñ Moussa darame nag doon laaj ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ndigal na ngir bënnub teen dafa amoon ñaari bërëb yoo xam ne nii dañ koo xamaloon ne nag ñaari bërëb yépp itam nag bërëb bi ndox la ginnaaw bu mu yónnee doom jooju sëriñ Dramé nag di laaj ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim ñaari bërëb yooyu nag ban moo ci gën ngir bënn fa nag ab teen Seexul Xadim nag mi ngi doon xamal ndaw loolu di ko wax ne nag bu Serigne Moussa Dramé mënee bënn ñaari teen yépp moo gën Serigne Moussa Dramé itam nag wéyaloon na ndigalul ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim bu bënnoon ñaari teen yooyu nag ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam benn teen ba naarub gànnaar bi ñuy wax Lamine ginnaaw bu mu seet si woon ku baax ki Serigne Touba Seexul Xadim ci dëkk boobu nag di njaareem Seexul Xadim doon ko xamal ne na dem ziyaara ji Serigne Moussa Dramé ginnaaw bu fa naaru gànnaar gileemam googu nag moo doon dox nag ba tàbbi ca teen ba loolu moo waraloon nag ñu sakk benn teen ba ba naatoon fa baneen teen ba tey ci diggante sëriñ Moussa Dramé ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim sëriñ Moussa Dramé yónni woon na ko ñuy wax sëriñ Omar Dieng jox ko fasu njëlamu ngir mu yit ko ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim addi yu takk yooyu sëriñ Moussa Dramé daan yónnee na ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim mi ngi ko jëlee nag ci jàmbaari ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim bii ñuy wax maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina bi sëriñ Moussa Dramé jaayantee ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim jëm ci gànnaar bi mu ñëwee nag dafa yónni woon ay ndaw rawatina doomam ji di sëriñ Babacar Dramé di ko xamal ne nag bu demee nag na wax Cheikh Ibrahima Fall moom dafa bëgg a nekk murit nag ko genn liggéey bi nag mu koy liggéeyal ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim te bëgg naa nekk nag murit saadeex xalaat boobu nag la doon laaj maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina Cheikh Ibrahima Fall nag mi ngi doon xamal ndawul sëriñ Moussa Dramé boobu di ko wax ne nag bu demee na sëriñ Moussa Dramé mel ne nag kuy gasub teen te kuy gasub teen baag bay tibb xeer di ko génne ak baag bay jëli xeer nag nag dañuy weesaloo ak taalibeem itam nag la ko jàppe noonu tax na sëriñ Moussa Dramé ci diirub lu mu nekk ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ay addiyam saa su ne nag dañuy fekkante mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Daaru Salaam boole ko nag di yar di jàng ak di jàngale ndax kat jàngalekatu alxuraan bu mag a mag a mag nag la woon jàngalekatu alxuraan bu mag boobu nag mu nekkoon tax na itam nag ak njabootam itam nag suñ borom xiir na leen ci jàng ak jàngale ba tax na itam nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba lu toll ñeen fukki daaray alxuraan ak juróom benn mi ngi fi sëriñ Moussa Dramé yu góor ak yu jigéen nag ñoo ko taxawal di jàppale seen maam ja bëgg-bëggam boobee mu amoon nag di jàngale alxuraanul karim dëkk yooyu mu nekkoon ak bëgg googu mu bëggoon sëriñ Touba Seexul Xadim tax na itam nag ñu takkoo takkoo takkoo takku nag defar na leen moom sëriñ Moussa Dramé ñu mën caa ràññee Cheikh Moussa Cissé ak ku ñuy wax sëriñ Makhtar Diabou ak ku ñuy wax sëriñ Ousseynou Ñaan ak ku ñuy wax Cheikh Mbara Cobaan ak ku ñuy wax sëriñ Cheikh Babou Guèye ak ku wax sëriñ Cheikh Ma Gumba Yaasin ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nii nag sëriñ Moussa Dramé defar na di Saalum mu nekk nag ku kiimaane ku yar nag di jàng ak di jàngale di dundal nag ndandal ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaadim nag ci suuf soosu nag di Saalum mu nekk itam nag ku am relation ak njabootu ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul rawatina nag doomu Seexul Xaadim bii ñuy wax Cheikh Mamadul Bachir Mbacke ibnu sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul sëriñ Moussa Dramé sancaloon na ma mu dul Bachir Mbacke nag ab dëkk itam nag ci Saalum ñu tudde ko nag kër sëriñ Basiiru tudde woon na Cheikh Mamadul Bachir Mbacke doom sëriñ Alioune Seck nag bu wanaar ku jaxasoo woon nag sëriñ Moussa Dramé la tax na nag ñoom ñaar nag kenn ku ne dénkoon nga sa moroom doon xamal sa moroom itam ne saa boo ma mujjee ginnaaw nag nag ma taxaw loolu itam nag tax na nag laataa sëriñ Moussa Dramé nag di génn àdduna bindoon na lettre nag sëriñ Alioune Seck wanaar di ko xamal ne nag maa ngi waaj a génn àdduna lañ waxante woon nag laa bëgg na nga defal ma ko relation boobu mu amoon nag mag ñi toppoon ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ni la ko boole woon nag yéeme nag ndax sëriñ Moussa Dramé nag nitug suñu boroom la woon loolu itam nag tax na màkkatal mu karama demu fa waaye waajoon na nag bay waaj a dem bi mu demee nag nag ba ci dëkk bii nag di ndakaaru nag la ko feebar daaneel mu dëpp nag delsiwaat nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam ginnaaw bu mu delsiwaatee nag ci dëkk boobu nag di daaru salaam nag bari na mag ñoo xam ne ni seetsi woon nañ ko nag di ko ndokkeel ci waaj googu nag mu doon waaja a dem nag màkkatal mukarrama ku ñuy wax maam ma dikk awa ginnaaw bu mu seet see sëriñ Moussa Dramé nag mu ngi doon xamal sëriñ Moussa Dramé yow kat sëriñ bi danga ngaa sawar rek nag di dem màkkatal mukarrama waaye maag yow guddik àjjuma gu jot danañ dem ziyaare ji kaaba gi xanaa da nga doon dem màkkatal mukarrama rek ngir nit ñi maam ma dikke awa moom sëriñ Moussa Dramé yoroon na ab jigéenam bu ñuy wax soxna xujja soxna xujja mi am na ak njaboot ak sëriñ Moussa Dramé ñu mën cee ràññee soxna Aysatu Dramé ak soxna Awa Dramé mu wii nag des nag ci dëkk boobu mu génn àdduna di Daaru Salaam soo delloo nag ci mbindum sëtam bii di sëriñ Lamine Dramé mag ñuy wax nag jikkoy sëriñ Moussa Dramé ni mu yéeme woon ni mu fonke woon xam-xam ak itam nag ni mu mënoon a yare doomu aadama ñu teewlu ko bambaa ko ñaanal gërëm ko waajal dafal ko seexal mu ko doyloo bambaa ko safloo ba ñëpp jubloo mbarkim di réew mi bambaa ko sàlloo bambaa ko fugloo jox na ko mbooloo muy seyxu réew mi bàmbaa ko fugloo mu bay di delloo hidaaya bégloo na seyxi réew mi moo gën ci siisaa te gën ca seesaa te fekk na buusaa muusaa di réew mi gën na ku dul moom te raw ku dul moom doyloo na nag moom ci gën ci réew mi bégloo na jii maas xaru jii maas ku jóg di wut maas moo romb maamee ku jóg di lambaas ngir ko ngir raas xamal ne sag maas yaa xar meemee muusaay borom xaas moom du am maas ci réew mi ndax maas boppam mosoo di booral mosoo di soofal jamaa nga maamee sa tab ga moo waral utit dalay dikkal nga jox ko far bégal telal ko moomee jamaalulaahi nga jalaalulaahi nga kamaalulaahi nga yooyu jox ma réew mi sa ngëm ga moo waral tafsir ga ngay fegal sa leeru ma moomee am nga alaama am nga salaama am nga nasaafa ci diine maamee rafet nga ak jokk ci doo dokk sàmm nga sag mbokk roy nga xadiimi sa jëf ji daamat sa diine matal nga taamat sa mbaax ci réew mi doxoo di xaste mosoo di botte te boot nga fàtte muñal nga réew mi njaboot ga yar nga doo nga yar nga mbokk ya yar nga baaxal nga réew mi jotal nga diine ci réew moo ne jullit yi maa ne ñoo gën ci réew mi muñ nga balaaya am nga wilaaya te am diraaya yaa sàmm réew mi jëfal nga bamba ci diine bamba quraanu bamba sa yaa bëgg bamba sa sopp bamba sa jeex ci bamba defar ma maamee jox nga sëriñ bi hidaaya xal bi sa tem sëriñ bi amul ci réew mi moo ñàkk nawle musul di jëwle te moom du dóorle jégal na réew mi te moom du tooñ kat ku tooñ mu baal kat musul di jàmbat ci waaxi réew mi rusul na gaaña ñu weddi waaja bamba di waaja waayoo na réew mi jëmam ja daa leer gisam nga daa leer jaayoom nga moo jar jaraale réew mi ñu laayu kaaba wa yor gu daay ba du njool ijaaba defal ma maamee ku am la salaam la moo am jalaala jamaalu réew mi moo am njaaraama te am karaama amul yaraanga taaral na réew mi amoon na xaybu te ñàkk xaybu dakoo a jalbu yiwal na réew mi wégoo nga mootee noonu ñu paate jëngu nji jootee duñ yàq réew mi quraan la sàlloo mbootam la gàlloo maxnaam la xàlloo jagal ci réew mi o yaa musa paate nuy ëxlu paate taxal nu paate ñu magi réew mi sumaaka muusa kafaaka buusa xalasta nafsa saydil karimi jikko yooyu sëriñ Lamine Dramé nag doon leeral ci maamam ji nag di sëriñ Moussa Dramé liggéeykatu Cheikhul Khadim bi ay tur takkoo takku nag am na ko yuñ koy woowee ñu mën cee sëriñ Serigne Paka man cee ràññee monsieur Paate Serigne monsieur Paate gi nag mi ngi ko jëlee ci kim njëkk jaayanteel man cee ràññee Serigne Moussa man cee ràññee Cheikh Moussa ak Serigne Tafsir doomu soxna Rama Sën Cissé bi mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam mu dëppoo woon nag bisub dibéer ñeenti fan ci weer wii nag di rakkaat ji gàmmu ci atum 1346 ci gàddaay gi dibéer ñeenti fani rakkaat ji gàmmu ci atum 1346 ci gàddaay gi dëppoog muy dimanche 30 octobre 1927 dimanche 30 octobre 19 1927 doomam ji nag di sëriñ Babacar Dramé moo ko jullee nag ñu jébbal ko boroomam ci dëkk boobu mu sancoon di daaru salaam ñu gën koo xam ci daaru Pakacaar ñu wax leen sax lan moo waral doomam jooju nag di sëriñ Babacar Dramé taxawu ko laataa sëriñ Moussa Dramé nag di génn àdduna waxtaanoon nag jàmbaari sëriñ Touba Seexul Xadim ji ñuy wax sëriñ Alioune Seck nag bu wanaar ñoom ñaar na kenn ku ne dénkoon sa moroom doon xamal sa moroom itam ne saa boo ma mujjee jamono nag ma taxawu bi sëriñ Moussa Dramé nag eggee nag ci génn àdduna la bindoon ab leetar nag sëriñ Alioune Seck Wanaar jébbaloon ko nag doomam ju mag nag di sëriñ Mouhamadou Dramé mu yiital ko ko nag sëriñ Alioune Seck Wanaar ginnaaw bu sëriñ Mouhamadou Dramé nag ba jox ko lettre nag bu ko waajuróom joxoon ginnaaw bu mu jàngee lettre ba ba noppi mi ngi doon xamal nag sëriñ Mouhamadou Dramé di ko wax ne est xam nga lan la sa waajur nag def ci lettre bi sëriñ Mouhamadou Dramé nag di ko wax ne ko déedéet sëriñ Alioune Seck Wanaar nag di ko xamal ne sëriñ Moussa Dramé da mi ngi may xamal ne naa ñëw nag wërët ci dëkk boobu nag di daaru salaam ngir taxawu ko ndax suñ boroom kan mi ngi koy xamal na mi ngi waaj a génn àdduna lii nag la bind nag ci lettre bi waaye nag yow mi sëriñ Mouhamadou Dramé doo mën a dellu nag daaru salaam ci sa waajur da ngay toog fii nag ci man lool moo waral nag sëriñ Babacar Dramé mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ Moussa Dramé jullee waajuram ci dëkk boobu nag di daaru salaam ginnaaw buñ ko jullee ba noppi sëriñ Aline Seck wanaar ñëwoon na fa itam nag ca ba di seet si nag njabootuk sëriñ Moussa Dramé ginnaaw bu mu ñëwee ci dëkk boobu nag di daaru salaam la doon Dramé di leen wax ne nag nañ jokk nag ci sëriñ Mouhamadou Dramé ndax mooy xalifab sëriñ Moussa Dramé bi mu demee bay tàggatoo nag la dajale njaboot ga di leen xamal ne bis na tey de képp ku ma gisati yaa ma fekk si ndax ñaari doomu aadama rek ñoo ma jaraloon jóg nag di ziyaare te gisatuma leen muy sëriñ Moussa Dramé ak ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim soo delloo nag ci mbindum sëtam bi nag di sëriñ Lamine Dramé defal na ko nag marsiya bu yaatoo yaatoo yaatu di ñu wax nag jikkoy maamam jooju nag di sëriñ Moussa Dramé ñu teewlu këram nga duñ ñàkkate yaa waame Moussa newet nga yow sa bàq na lool du waay di ji mu di waame Moussa amoo maas yow mosoo sa maas ga ñee la yow yaa di waame yow ku la xam ëllëg bëtam du xonq foofaa abraarin xam nañu la Moussa daraame si jaañi xam nañu la yow um nga lambi diine ji ndax yaa di maame rafet nga taaru nga taaral nga yow diine ji walaahi kenn dabu la Moussa di mag mee nangul nga Seex Bamba yow walaahi am nga ndam Bamba gërëm na la yow Moussa daraame kaangal nga donga yi sa kaan nga dañ réew mi yow Quraan gërëm na la te jooy na moomee waral mi daa ko wax tafsiru lislaam ji yaa fi raw bàmbaale moome yow am nga ndam da nga nangu walaahi yaa gore am nga alaamatu ndax mi yow yaa di Seex Bamba Bamba di Muusa sagal nga noo dimbali nga noo yaa di imaame yow baax nga taaru nga mosoo di ree ba si ñii muñ nga taaru na yow yaa di maame kennal nga Seex Bamba yow am nga manoore yow am nga wilaayat lii wóor na réew mi teref bi Seex Bamba ne dem leen si yaa ji Muusa borom daaru lii wóor na réew gaañi di kër kër fa daaru waamee Seex ya di raam na fàggul ñu kër yu rëy lool a xiyaamatu xéewal gi waamee buñ jàq bu nu tiit nun bu nu raf ca foofee Moussa dimbale nga noo ndax yaa di maamee an sax ci jaamu nun toroy ko ak jolooreem yamal xiyaamatu wala yaa ñuy ramee kenn dabula ci hëddiya bambaa ko seere tey fay gi agsi na daa roodi waamee keneel nga seex bamba keneel gu rëy te leer lool te jëf ji màgg na yow yaa di réew yu rëy yi nga am yow niiroo tawal nga waa réew mi to daaru waamee tawal nga waa daaru ba jàll yor yow ku xiif tamar nga jox bu jeex a moroomee amal nga Seex Bamba mboole mi gox fa Saalum te jur gi loofunu te noo ngi waamee yaa gën la ak juddu dum nga ku dul Bamba mi wii di wax jile amul wilaaye moomee Moussa de nee na moom bu ñëpp demoon safaan bee mu samp ay weewum nu génnoon dem di waamee mu ram mu ñëpp tàbbal jana suufu ndëgum du sàng maqaama Seex Moussa xaaba xayrul xadimi sa sas wi bay nga lépp bayaale saxi sëñ bee Moussa musul di boo yaa di garmee te sët jooy nañu la yu yaale waa réew mi lépp islam ji na Moussa Dramé jooy naa maadi sasat maadi lamin man naadi waame yasaaka yaa kalimu Moussa Darame yaa jalsi wak kibrin yaa wuyoo Darame jalsi nga ay yooni yoon di wër sëriñ bu mag bi yaa raw ña jiiti woon ba di na te na yaaji réew mi te daaru yaatu na barkem ba leer na siiw lool waaye fa ñaan mu am lii wóor na réew mi Tuubaa di daaru daaroo di Tuubaa Bamba ko wax wér na Moussa Darame wallahi kuñ fa suul dafay texe su boobaa ëllëg xiyaamatu firdaw si jël ko moomee yow paate jant nga wallahi tiim nga mi te seex si xam nañu la moom roomee yaa di weer wile ba tax ko réer ñu gindi leeral nga réew mi lépp yaa di imaamee ba ak lëndëm sosoo jaaxle gi ñëw ñu jàq nun su weer wi nee dang lëndëm gi dem nu waamee leer na ko yow yaay ki mën ci seex si yaay yor drapeau bi yaay soldaar yi bamba mag mi généralu bamba yaay ki ko seefu moomee bambaale xam dong yow yaa di moomee daaru gindaale waa mi ku suubu jëm ci bamba gis leen moom du jaaxle ngir xam ne yaay bamba Moussa Darame ma gënal ndey te gënal ma sa baay yaa yor sunuy ruux yi ñoom yaram yu lan moomee bamba takkal na la mi daay wu gën fa ooree ku sët li lépp jox na koomee ma ñaan fi bur yàlla xéewal yu dul jeexati duniyaa wa oxra nu wéy di koomee ci barke Cheikh Moussa ci laa dagaane buur bee defal nu ak ndimbal te jox na niiru koomee abi saadatu الدارين والبركة دنيا وأخرى بخيرها كريم وامنح عيوبي منه إلى خيرنا بجاه شيخ موسى ليس الخديم وقدت لي الرزق في كل يوم وقت بلا قطاع ولا عدد الكريم وزد علومنا فهما وسدت رزقي واصرف قلوبنا إلى الخديم ونجني ربي في مكر عدونا في ساحر وباتن أنت الكريم أكرم بي اللهم بجاه شيخ موسى والدي والدي رب السلام daqal ak ñàkk te jeex na géeju koomee bu kenn ñàkkati Moussa Darame ñëpp am koom ak yi ju nekk milliard ak taaxu fu kaw yi lépp mu bel di ko amee te may nu ay woto yu rëy yu rëy rafet lool nu jox ko Seex Bamba ndax moomee na fan njoolu lool te wér gi sax fi loolee na xel yi yépp dal Moussa Darame bu nu xiif bu nu mar ku baax ko yow jox na la xéewal yu dul jeexati Moussa Darame ëllëg xiyaamatu nun binnu xisaab foofee nun daagu dem janna yaa di imaamee yàlla gërëm na la yonent bi it gërëm la Bamba gërëm na la lii wóor na réew mi moom sëriñ Moussa Darame nag ay xalifaam Serigne Mor Bodé moo ko wuutu ci 1927 ba ci atum 1935 ñaareelu xalifa Serigne Moussa Dramé mooy Serigne Babacar Dramé moo ko wuutu ci atum 1935 ba ci atum 1950 ñetteelu xalifa Serigne Moussa Dramé mooy Serigne Cheikh Seynabou Dramé moo ko wuutu ci atum 1950 ba ci atum 1969 ñeenteelu xalifa Serigne Moussa Dramé mooy Serigne Omar Boun Dramé moo ko wuutu ci atum 1969 ba ci atum 1976 juróomeelu xalifa Serigne Moussa Dramé mooy Serigne Tay Abdoulaye Four Daraame moo ko wutu ci atu ba ci atu 1981 liñ tudde nag doomu sëriñ Moussa Daraame yu góor yi nag jeex tàkk nag ci kaw suufa sët tàmbalee wuutu seen maam ji sët bi njëkk a wuutu sëriñ Moussa Daraame mooy juróom benneelu xalifaam mooy sëriñ Mouhamadou Daraame ñu gën koo xam ci sëriñ Moor Ñaba ibnu sëriñ Mouhamadou Daraame mi njëkk a wuutu sëriñ Moussa Daraame moo ko wutu ci atu 1981 ba ci atu 1991 juróom ñaareelu xalifa sëriñ Moussa Daraame mooy ñaareelu sët nag bu wuutu sëriñ Moussa Daraame ñu gën koo xam ci sëriñ Mouhamadou Mouhamadou Lamine Dramé doomu Serigne Mouhamadou Dramé la mi a di a juróom-ñeenteelu xalifa Serigne Moussa Dramé di ñeenteelu sët nag bu wuutu maamam mooy Serigne Ibrahima Dramé doomu Serigne Mouhamadou Dramé la bi njëkk njëkk a wuutu sëriñ Moussa Dramé moo ko wuutu nag ci atum 2006 ba ci 2007 fukkeelu xalifa sëriñ Moussa Dramé di juróomeelu sët nag bu wuutu maamam ñu koy wax nag sëriñ Mouhamadou Dramé ñu gën koo doomu sëriñ Omar Bun Dramé la mi nekkoon ñeenteelu xalifa sëriñ Moussa Dramé moo fi nekk nag ci atum nag ba ci atum juróom benneelu sët nag bu wuutu maamam di fukkeelu xalifa ak benn nag bu sëriñ Moussa Dramé mooy sëriñ El Hadji Modou Fati Dramé doomu sëriñ Cheikh Fati Dieyna Dramé la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 sëñ Moussa Dramé yi di ko ci nag fàttaliku nag ci bis boobu ñu koy amale nag ci dëkk bi ko sëriñ Touba Seexul Xadim joxoon ndigal na ngir mu sanc ko muy daaru salaam ñu gën koo xam nag ci daaru Pakacaar màggal gi itam nag guddeeg bëccëg nag lay am ñuy ñaan ca ka fekki woon sëriñ Touba Seexul Xadim ci réew mi di gànnaar ci dëkk bii nag di xumaaka yàlla ñu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gém fi bàyyi lii di jafe-jafe réew mi itam nag ñu ngi ñaan suñ borom saafara ko ci darajey liggéeykatu xaadim rasuul